beaucoup, hello mes gars, mes amis, c'est Rita Paradis Massaï Balago Faramaren qui est tey nag sama vidéo dafa ala dawme ndax boo déggee ala dawme mooy dama ñëw fii ci lagin bi fekk fi sama mbokku lébu yi rek lébu ndooy maali maram ndooy nee naa la ñii ñooy borom jom fit fula ak fayda dóor waar rek la ñuy nekk saa yu ñu yeewoo ci dóor waar la ñuy dox nee naa la cheikh a ngi nii mooy togg ceebu jën penda mbay bi jigéen ñi da ngeen yaakaar ne yéen rek a mun a togg waaye du yéen rek a mun a togg Cheikh a ngi nii di rëgal ceebu jënam capitaine la koy toggee ak ban jën. ak sompat ak sompat. ak ñaaw neex nee naa la ñaaw neex la sompat ak capitaine lay toggee ceebu jënam xanaa kon lagi na neex rek ak ak géro ah nee naa la fii jën bu nëb wala jën bu ñu congelé kenn du ko fi lekk. bu bees tàq la ñuy lekk bu ñu génnee ci géej muy yëngatu nee naa la sama gaa yaa ngi nii gaal gaa ngi nii daal di teer rek indi jën yi ah Cheikh di rëgal ceebu jënam bu neex. nee naa la lii fii rek nga ko mën a amee ci dëkku Lebu yi sama gaa yaa ngi nii ceeb baa ngi nii ñuy defar daay lay laa man yaakaaroon naa dama foogoon jigéen rek a mun a togg ndeke góor ñi tamit ñoo dàq togg sax jigéen te nee naa la jigéen ñi dañu tayal léegi ba nga xamante ne fourneau la ñuy toggee euh, gaz la ñuy toggee waaye dama nee la cheikh mii furnoom la def rek daa di ciy teg cin li rek nee naa la togg booy togg wutal sa këriñ rek daa di teg sa furna loolu togg booboo gën a neex te moo gën a saf jël ko nii muy xamba ay matam di daal di defal furnoom ba mu baax rek boyal këriñam teg ataaya ba ca wet ga nee naa la ñii ñooy ay góor yàlla piir ku dul lëbu lëboo la gën sama gaay yi góor ñëpp nañ dem nekk ay lébu ndax day tax ñu am jom fit fula ak fayda ay lébu la ñu man sax léegi nekkatuma séeréer lébu ndooy maali maram ndooy pire laa jaay naa sama nasion maa nga ca lébu ga kon sama gars yi I love you so much thank